rapport ak euh, visite bi tey ah, waaw dañoo tànk yi dañoo ñëw tey comme niñ ko daan defee at mu nekk bu mawlu mawludu nabi jotee ñu ñëw Tiwaawoon ci tund ci ndigalu président Abdoulaye Wade ak euh, euh, Karim Meïssa Wade secrétaire général adjoint ñëw ziar si xalifa bi sargal ko ànd ak njaboot gi yëpp nag doxal li nga xam ne si moom lañ daan def ndax nag bis bi dafa nekk bis boo xam ne si bisu umma islamique bi yëpp la bis boobu nag lii nag dafay lu yàgg loo xam ne si ci opposition président ko daan def bi mu nekkee pouvoir mu koy def bi mu nekkatul pouvoir itam toujours day wax njabootam dem leen ba ci xalifa bi ngeen joxal ma ko sama ziyaal sama sargal joxal ma ko suma ñaan ak euh, ñaanu Sénégal kon daal dañoo nekk di dox loo xam ne si yàgg nañ koo dox ngeen di ñëw ci benn contexte bi nga xam ne ni tiis bëri na ci Sénégal accident ñu jóge ci accident chavirement de ñu bëri faatu yooyu tamit yan kàddu ngeen ci mën a xanaa di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jullit moom lu demee noonu bu ñëwee loolu la ñu sant loolu la ñuy def di wax rek ni euh, lu diis la lu tegu ci kaw Sénégal di jaale njaboot yi nga xam ni si yëpp dañ cee am ñoo xam ni si loolu daf leen caa dal di leen ñaanal yàlla di ñaan daal lu mel noonu yàll na fi géej di wax rek xale yi ak ndaw yi ak ñi nga xam ne si dañuy jóg di wuti gaal yi nañu xool li ñuy def am na loo xam ne si boo gisee la cay xew ak la la ca mën a fekk yëpp loo bëgg bëgg bëgg tekki kenn waxu la ngay xaaru nga dugg ci loo xam ni xaaru lay doon ndax la la ca mën a fekk lépp donc di wax itam gouvernement bi nañu jël ay mesures pour gën a aar côte yi euh, tefes yi yëpp nañ ko gën a aar ndax liy xew ci tefes yi la ay xale la yoo xam ne dañuy jël gaal dugg ci beneen gaal kon loolu bu ñu amee surveillance bu mat sëkk mën nañoo fexe ba ñu bari ci ñi war a départ départ yi ñu endigué ko ndax phénomène bi moom kenn mënu koo dindi ci xelu nit ñi ndax phénomène bi moom kenn mënu koo dindi ndax li demloo nit ñi dafa nekk lu ñuy dund loolu nag ñaan yàlla aussi fexe ba Sénégal gi nga xam ne si mooy sunum réew dem a dem ba nga xam si ku fi dëkk da ngay yaakaar ni mën nga fee toog tekki fi loolu nag la révolution culturelle la bu rëy boo xam ni il faut ñu ñun ñëpp ñu liggéey ci ba sunu ndaw yëpp yaakaar ni fii ñu toog mën nañ fee tekki loolu nag bari na loo xam ne dañ ko war a changer ak loo xam ne dañ ko war a teg ci luy delloo si yaakaar ci nit ñi ba ku nekk am yaakaar ci sa gox am yaakaar ci sa dëkk am yaakaar ci liggéey bi ngay def ni lii mën naa cee tekki loolu daal mooy ay révolution ak ay changement yoo xam ne il faut ñu dugal ko ci biir réew mi nit ñi gën koo gëm bu loolu amul rek dañuy dem rek ndax nit nag bu yaakaaree ni fii mu toog du fi tekki bu yaakaaree ni métier mii mu jàng wala diplôme bii ma yor maa ngi toog boobu ba léegi mënuma ma cee am liggéey day il faut que mu wuti tekki tekki nag fa ko yaakaar rek ngay dem wuti ak lu la fa fekk donc li ñu war a def daal mooy loolu aar géej géej def yëpp bët boo foo bët foo fat ñu wuti yoneen yoon ndax boo fekkente ni yaa ngi seen fële ni fële ku fa dem tekki maa ngi fii tekkiwuma lu la fa yóbbu rek ngay xalaat mais itam bu la ni fii ma toog ñeewuma ñële ndax maa ngi fii tekki da nga toog kon daal loolu dafa nekk problématique boo xam ne il faut nit ñi boo toog ki waxtaan xalaat ci buñ ci xalaatee waxtaan ci nag ñu développé li nga xam ne si moo koy saafara li koy saafara du aar dem bi mooy fexe nit ku nekk daal mën a tekki fa nga nekk ak la nga xam ni si moom nga mën a def jërëjëf euh, leneen li tamit di xel yëpp nekk assemblée national suba la le 12 incha allah président day dissoudre di dissoudre DPG day am du am lan moo ciy sa xalaat yow. sama xalaat mooy à partir du 12 président yoon may na ko waxtu ko neexee mën naa dissoudre kon loolu ñu ngi xaar ba xam dana jëfandikoo loolu ko yoon mayam déet. DPG itam président bind na assemblée nationale wax ni la 13 la ñun député yi daal ñi ngi waajal suñu bopp di xaar suñu gan googu ñuy xaar pour le 13 ndax nag gisaguñu lenn lu koy dindi ndax président moo bind ni assemblée waajal leen premier ministre le 13 ñun de man de sama groupe parlementaire maa ngi koy waaj ñu ngi waajal daal xaar incha allahu ba le 13. donc le 13 ak le 12 yëpp ay date la ñu lu ci nekk nag la ca war a am yoon la. lu ci nekk rek nekk dogal bu bu war a nekk ñu lay xaar. Karim Wade kañ lay ñëw. Euh, incha allah rabbi waxtu wu ñëw rek danañ ko yëgle jërëjëf. waaw gannaaw loolu di sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu sëriñ bi donc am naa chance gis ko di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla euh, may wér yaram ak gudd fan ak euh, mboolemu njaboot El Hadji si Sy vraiment chance la am gis ko. Euh, di di léegi di ko gërëm di ko sant aussi ci dalal bu mu ñu dalal donc euh, man dama ñëw ak euh, sama équipe ANASER ñëw fi aussi ci turu sama ministre mooy El Malick Ndiaye mooy moo yore lépp lu jëm ci infrastructure ak transport di ko nuyu bu baax di nuyu aussi di sargal le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye di nuyu aussi di gërëm di sant bu baax son premier ministre Ousmane Sonko donc tey dañu ñëwoon ci dëkk bu tedd bi euh, pour sàkku ñaan donc ñaan ci euh, gàmm bi nga xam ne moom la ñu jëm euh, ci fan yi di ñaan yàlla surtout sëriñ bi ñaan yàlla mu am acci bon du am ay accident yu bari duñ naan zéro accident donc gis ngeen fan yi accident yi bari na ci réew mi donc di ñaan yàlla rek ñi nga xam ne ñoo ngi jëfloog ak oto yi surtout chauffeurs yi ñu def ndànk ci tali bi donc amul dara luñ ci yàkkanti leen ñaan yàlla vraiment nga xam ne euh, dañu war a ñëw ci gàmm bi ci jàmm ñibbisi si jàmm ak salaam donc loolu laa leen di ñaax euh, def jël ay mesures de de de prudence ci tali bi surtout côté euh, téléphone yi ak excès de vitesse aussi ñu def ndànk bu fekkee ne dañu sond ñu noppalu loolu lu am solo la c'est des mesures yoo xamante ne ñu ko jëlee du ma wax ne accident du am de mais mën na ko wàññi lu bari bari bari vraiment di leen waaw waaw surtout respecter code de la route bi aussi lu am solo la donc bu ñu ko respecter vraiment euh, dina wàññi lu bëri accident yi donc di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yéen ñëpp euh, gàmmu jàmm ak salaam nit ñi ñu dem ci jàmm ñibbisi si jàmm ak salaam